football Sénégal tout à fait système donc indi mm-hmm. et je pense que taxul mu metti danger la dénoncé parce que oh. ñoo am billet soxo soxo yi am na ñoo xam ne dañu dem pour soxo soxo am na ñoo xam ne dañoo dem pour dañ kumpa ji stade bi comme ni am na ñoo xam ne dañoo dem pour yuuxoo parce que nag dañ bëgg fayu ah waa Égypte ñu def nuyu nañu leen jaajëfal leen euh, comme nag euh, tey ji bu buur bañee la may nangu tey foofa na dañ ñàkk kaay def revue mu bañ le député du port mën naa ñëw ñoom nañu góorgóorlu waa fédération nañu dox ni jamonoy doxee dama sonn si taxaw bi rek waaye tane na def benn code barre ak benn logiciel nga jënd ci orange wala ci wave la nangam bo ñëwee ci code barre ngay teg sa téléphone affiché ko ni après mu validé c'est que restaurant yi jaay glace ñoko ko mën kay sànkaan ak ñoom pourquoi pas war c'est-à-dire sa sa ticket day nekk sa téléphone c'est ça da nga ñëw def non non yomb na loolu mën na ne moom lañ ci xalaat la prochaine fois ay dañu koy do wax yéene kay bi le quotidien le quotidien dafa ñëw ci Sénégal Égypte à 17h la wax tay ji rendez-vous bi 17h le c'est Sad Abdoulaye Wade bu Diamniadio ñu ne on doit gagner Doha bi moy sa Qatar kon nak ngir ñu dem Qatar Euh, ci euh, coupe du monde bi faw ñu gagné. deux ñu xaar 17 heures de 15 heures na leen fa fekk. 17 heures 15 heures fa fekk. am na ñoo xam ne instant bi leer na ma ñu ngi ñu ngi ci yoon bi. pour dem euh, takku taxaw am ñu non gars yi nañu taxaw ba pare fu nekk nii kay 17 heures rek la ñuy xaar bés bu rafet. wala heure bu rafet bu rafet. Mm. ayca la ñu soxla ndax nag dañoo encaissé fële kon nag fii deux buts d'écart la ñu soxla ngir mën a dem sa Qatar yéen kaay bii di le quotidien foofu la génne ñu jàll ci record Sénégal Égypte à 17 heures. Euh, ñu gis ne kon yéen a kaat nee na à nous vingt mondial 2022 kon nag Aliou Cissé nee na neexul ba neex nag mondial 2022 bi suñu mondial la parce que at mi moom wax ba dëgg si la ñu am coupe d' nekk champion ba pare doo dem sa mondial ba dina xaw a yéeme trop nag yéen a kaat nee na bi suñu mondial la Aliou Cissé sélectionneur euh, des Lions bi nga xam ne mayoom moom la Mamadou Fofana sol tey ji 52 nee na am nañu mboolem argument bu wan bu ñu mën a may ñu euh, gañe match bi kon nag ndugg mi rafet na ndugg nañu dugg yëpp li <laughs> si des kay mooy togg rek yekk hmm. te nag nee na ndugg mi mat na sëkk mu waa li Cissé loolu la xam nee na on espère faire mieux Caire ñoom waa Égypte nag ñoom wax fa dëgg neex yàlla dellu <coughs> <coughs> ñu ginnaaw de ñoom nee nañu li ñu bëgg mooy euh, def la ñu defoon Caire ñu def lu ko lu ko Sénégal Égypte nee Nous amatul mi ngi ko wax euh, euh, Abdou Diallo forfait c'est confirmé la gendarmerie def nañu benn plan de circulation bu nga nous ne ku dem sa dem bi dina stade bi dina accessible ndax xam nañu Sénégal gi yëpp foofu la euh, rendez-vous c'est bu clé victoire joxe na clé victoire bi donc mom mané sañ wax né lii xeeñ neex na nak gabaski xaw ma tabaski <laughs> moom mi nga xam ne wax fa deug neex yalla mom la gaay ñi doon waté mom xam ne bu taxawé ci camp rek fessé na camp yi borom butéelu ndox borom butéelu ndox meex tour yi hmm. gaay né nañ no tour yi ay ko si nekk fa nga doon plan fa ngay door sa bal la né <laughs> na ñom mom gabaski né na xam nañu nan lañu jouer contre Sénégal hmm. lo xam-xam ba ma dee ma gën laa xam boppam def naa noonu la wax mm-hmm. loolu ñu xam ñoo leen gën a xam suñu bopp stade yéen yi dafa ñëw ci euh, li nga xam ne mooy Sénégal Égypte tey yéen kaay yi presque pratiquement ñoom ñu si lañ ñëw deuxième gardien la woon non Gabaski deuxième gardien la woon deuxième gardien la woon tout à fait mu mujjee officiel si si deuxième gardien la woon cest dire le premier euh, officiel bi euh, moo gaañu góolu tuuti

buy tirer penalty fii lay tirer. Mm, waaw. Mambay buy tiire fii lay tiire léegi loolu lañ ko doon tafal ci butéelam boobu mu yore woon ku ñëw taxaw mu xam ne kii fii lay faral di dóor moo tax muy tëb foofu boobu de xeetu jiba bu bees la rek euh, ñaari entraîneurs yi hmm. ku si nekk mi ngi sànni say morom track amener euh, la meilleure réponse possible loolu moom mooy euh, kàddu yi nga xam ne Aliou yëkkati na ko ki nga xam ne moom mooy entraîneur ba Égypte nee na bu ñu amee de possession rek ñun dinañ ko mën a exploiter ba am lu ñu bëgg waaye xaar leen ba am 2 pour cent si possession yi moom wax fa dëgg neex yàlla ñoo ngi daas fanaan rek toog <laughs> talaatay ndeer ñoom noonu lañ ko tuddee tey jii en tout lu mu ci manti doon fulla fayda jom la ñuy xaar suñu gaynde yi yéene kaay bi euh, foofu la génne cadre de concertation des acteurs de la pêche artisanale ñoom nag ñu ngi yëkkati seen kàddu di euh, dànkaafu ci yéene kaay bi di vox populi sama mbokki mool yi ñoom nag nee nañ euh, jamono ji nag nañuy dundee géej gi metti na lool ba fii metti yam te nag fu mu nekk nii ngalawaay nañ leen gestu ndaje bi nga xam ne président daf leen ko digoon nañu ko woote def ab ndëpp ci wàllu napp mi ngir nag ñu xam exactement napp mi nan la ñuy demee lu ko may nag mool yu ci bari daw nañu dem Espagne euh, te nag dara warlu ko lu géej gu kaaya yéenekaay bi euh, euh, ñëw na si ñëwaat ci li nga xam ne mooy yéenekaay groupe de médias la tribune dafa ñëw ci la nga xam ne moom moo xew ah lii nag mbuur la de.

film film RTL 9 yooyu ñu euh, ñi mag ñi di seetaan. waaw ñoom ñoo li ñu doon def moo gën raw loolu. donc ay xalé ay xalé 18 ans 21 ans di si def lu nga xamné ni moy mooy nak sadul nonu euh, si ay 30 vidéos la leen nak euh, la nga xamné mom mo moo leen weer muy ben challenge buñ doon def ci whatsapp whatsapp bi ci la vidéo yi tas donc nee nañu njort nañu ne ñu ci bari semaine bi di ñew dañ leen arrêté ndax vidéo yi nga xamné mom lañ doon mom lañ doon école bañu ñu dak nañu leen en tout cas yéeme na trop ay ndaw lañu euh, souteneur Karim Meïssa Wade yi da yëkk nañ seen kàddu euh, dénk ko waa direction bu PDS nee nañu nag bu ñu xoolaatul wàllum copinage ci parti démocratique sénégalais soo moytul parti bi dana tas ndax nag fi mu nekk nii ay affaire yu yaama neex néegub doomu nday la ñu nemmeeku ci biir PDS. Hmm. alors que bu laajee sanctionné ñu sanctionné bu laajee teg ay daan nañu teg ay daan waaye mbirum euh, kii moo fi nekk yaa ma neex ndey di ko yeex yooyu loolu ci boppam la ñu bëgg mu dakk ci biir parti bi mooy ñi nga xam ne ñooy jàppal tànk Karim a Wade ñu dem ci euh, euh, tabaski 2022 jotagul waaye nag daas fanaanal bien boo ñu xam ne boo moytul xar yi war a daan jógee Mali du ñu ñëw de boo maytuwul du ñu ñëw de en tout cas loolu la yéenekaay bi di dànqaafoo hmm. moom dikk na ca dikk ci l'observateur

te dañuy toog ba ñu ni suba la tabaski xar yi manqué. ñuy buuxante. yéema ñu nekkoon éleveur ñoom foofa naaj bi ñoom di raay ñëpp am problème. oui ko ca kaw. yéema ne

moom it du ñàkk am na say kàddu yu mu si yëkkati yéenekaay bi dikk na ci benn ëmb 4 mois bu nga xam ne ni euh, lañ sa jubloon mooy jéem a avorté waaye xeex bu mujj ci ak faatuk bakken ak benn valise bu ñu njort ni foofu la ñu defoon néew bi mm-hmm. ngir nag man koo rawatle euh, ci euh, foofu nga xam ne moom mooy université Gaston Berger en tout cas enquête bi tàmbali naa génne te nag du ñàkk xam naa tës dinañ ci dikkaat ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop mm-hmm. tout à l'heure ci 89 point 7 Umra Ramadan 2022 pèlerinage hors de prix hélas je ce secteur là de aju màkk ji à euh, euh, pèlerinage bi njëkk yi dana cher les billets sont excessivement chers hôtel et nag du double au simple la la du simple au double du simple au double. voilà. Euh. Ah, mais wax dëgg yàlla moom umra pèlerinage ou umra koor mhm. mu sa tolloo ak beneen umra mhm. hmm? umra koor mu sa tolloo ak beneen umra sérieusement tey yow ikram bi te mënoo fexe wala def effet it nag ci biir pèlerinage waaw ah, yéeme na du ñàkk dinañ ci waxtaan méttiwul quoi xëy na gars yi dañu xamul secteur bi mais méttiwul ah <laughs> méttiwul de amul ay yoon la quoi ay raccourci non umra umra umra ramadan naka jekk bi àdduna sosoo ak léegi moo gën moo gën a cher parce que privilège bi la ak période bi. ok loolu après. bi quoi. parce loolu après il faut ñëw ñu waxtaanee ko ay ca lu mu mënti doon nag bu leen fàtte ne suñu mbokki nappkat yi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe donc nañu leen taxaw Birahim bu ma bu ma kii damay plaider sama sama mbokki nappkat yi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe leen ndax nag géej gi fu mu nekk dafa kaaya te ñun ci loolu rek la ñu am mais nuyu baax Pierre Mboub quai de bu euh, Tëngéej ak Alioune Thiam tout à l'heure wax naa Mamadou Fofana. oui kon ba ci kanam. Euh, ba ci kanam. incha allah Mamadou Fofana fii lay bañee taxaw Mamadou Fofana kaay taxaw nii. xoolal day wiiri de <laughs> dañuy àndaax le député du peuple mu ñëw ci titre yi laata ñu jàll ci li nga xam ne mooy waxtaan bi ànd bi Birahim Diadji Touré. Zik FM euh, juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum li gën a fees ci faatu faatuk étudiant Seynabou Ka Diallo ca diwaanu san louis ay nattangoom démb def nañu manifestation justice la ñuy demandé boolu ci dem di sàkku leera nga am ci boobuleeg faat euh, am na itam lu ci am évolution na ci wàllu xibaar ndax am na ku ñu tegagum loxo. lu may loolu itam dinañ wax ci lu doy waar ci diwaanu mbuur ay xale yi doon def lu leen neex di filmer seen bopp vidéo yaa leen ndax daal di tas nag dàq lañu leen ñu ni ci école ba ñu nekkoon seen dund ngi diggante fukki at ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki at ak benn te ñu ngi njort ni dina ci am ñu ñu teg loxo fii ak ay ay bis ci suñu kanam sport tey jii bisub dëgg la Sénégal Égypte ca dem ga Égypte moo amoon bituk fa kastalu retour bi Sénégal ñuy xaar mu dugal ñaari bi effectivement loolu mooy dëgg du ma ne la Égypte gagné waaye biitu fa la incha allah bàyyi ma an tumub dana ko faram fàccee lu mooy loolee yéen kaay lañ koy ndax keppe ak mantulaay ci bu ndoy faram fàcce gi ak Mambay Ndiaye ci laata ñuy xuus si xibaar yi dañuy wàcc si tali bi saytu dem bex dikk bi àndal see xaba jaata Voici Trafic News. Baye Massamba Diatta gannaaw ba mu la nuyoo foo toll ak circulation bi nu mu demee. voilà merci beaucoup Mambay nous avons progressé jaax nañ sànq fi nga xam moom mooy àndox ne mi ñu bàyyi ko parce que fi nga xam mooy Mariama Niass sur l'autoroute en route vers l'échangeur di ngeen xaw a ralentir en file aussi au niveau de l'échangeur yéen ñu bàyyi ko du côté de la boulangerie Papa ah. progressé jaare ko à partir bu ànd jëm foofu la di ngeen taaxirlu d'autres bàyyi ko si rond point MG aussi dédi des ralentissements vers la cité des eaux fi concentré